Euh, waaw euh, lu jëm si eaux et forêt euh, maanaam pour mi également service commerce service élevage ñoom moom déjà pour matt mi moom déjà permis yëpp mettre nañ ko à disposition lii jëm si wàllu kii commerce